doo jàmbaar barki yéen a di yàlla Muhammad xool loo am lu jéggi sa tànk kii dafa amal ku dul yow sax mënoo yi déglu leen face to face bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal di koy def drapeau Ibrahima Faye Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci fees tu face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouche Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Gorofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara fa ak Deko Cric Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro 2 ak yeneen xale yi nga xamante ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu samedi 12 octobre ci arène nationale à partir de 15 heures ko kenn loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production nga jàpp si rek est-ce que tëgg bi tey yaa ngi si gis sa bopp tey mun si yor njaboot gi famille bi soxla yi mbokk yi. waaw am na lu muy faj am na loo xam ne mun suñ loxo du fa yegg. Mhm. waaw parce que xalangu dajul fépp. Mhm. tëgg bi munoo ci munoo ci am lu lu dépense nga ci mën a am. Mhm. kër sax munoo ko ci tabax. parce que lu ñu lay fay baax bëriwul. ñu ngay àndal dañoo bëri. waaw xam nga tey comme woykat yi làmb yi lu ñuy ñuy rawee tuuti. mooy kër ñoom bu la neexee ñoom man a yow kese ñoom. ñaari nit rek ñaari nit mën nañu woy làmb ba jeex. mais tëgg mënoo dem cinq personnes sax mënul tëgg làmb jamono bi parce que gars yi dañoo miin sabar yu bari. Mhm. il nga yóbbu ay dix ba quinze. Mhm. nga doog a tëgg làmb bu jaar. tëgg làmb du am mhm. loolu tamit boo ko buggee boole ñu lay fay ay kase cent cinquante mille francs. xam nga boo sa passe dem ñëw bi rek mille francs Kaolack. Kaolack Kaolack Dakar rek. aller retour boo calculer xam nga cent cent cinquante mille moom jeex na. waaw léegi yow li nga yaakaar mooy li nga am si géew may la yeeg yooyu noonu quoi. des hmm. fois ñu mer des fois ñu. Hmm. Hmm. mais suñu sañoon daal gars yi di ñu gëstu quoi promoteur yi di ci jàpp quoi tamit. di leen gëstu rek yokk yokk yokk yokk kase yi. leen jàppale sixième bi may terminé nag tey Bokar Dione muy combat royal diggante Siteu ak Modou Lo combat ko gisee. waaw Siteu ak Modou Lo. combat royal. muy combat bu neex. waaw combat boo xam ne nii ñëpp ko bëgg Sénégal. waaw mu boole ñaari ndaanaan yu mag nag. Mm-hmm. ndax soo nee Modou Lo mooy roi des arènes nag kooku jaratul sax ngay naan lii la mëne lii la mëne lii la mëne. Mm-hmm. Siteu soo xoolee euh, dafa def ay preuve am ba yegg si. Mm-hmm. gaa Modou Lo de ko may sens mais nag mbër la comme mbër la nag tasek roi des arènes. moom liñ koy conseillé moom en tant que mbër bu ñëw pour foxorti comme ni mu koy waxee. foxorti boobu muy wax. mu gëm ko ci biiram. Mm-hmm. ndax man maanaam mën nga di wax ne lii dinaa ko def. fekk li koy doo doo ko appliqué. Mm-hmm. na jël Modou Lo comme du roi des arènes su ko bëggee daan la wax de. na ko na ko manqué respect. bañ ko considéré waaw bu ko considéré Modou Lo ku ko considéré ci lam doo ko daan. soo xoolee Balla ni muy daanee Modou Lo. Mm-hmm. arbitre day ne përëb rek mu tàkk ci kawam. Modou Lo looloo koy daan mais soo xalaatee doo ko daan ndax ëpp ko xalaat. kon dañ ngay naan na ko manqué respect. su bëggee daan laa wax nag. su bëggee daan saa ko joxee cër. Hmm. lu bëri ba conscience am tranquille hmm. dootoo daan. kon am war ko may mu xalaat. ko sax may mu xalaat. Modou Lo gagné na roi des arènes comme gagné na ko nag moo téye des arènes te man may jël si. waaw la déglu. arbitre suñ ne prip man maa ngi sa kaw. mais duñ la buñ la nee buñ la nee nekkal ci kawam nag mais bul tax nga nga perte say repère nga xam ni ngay bëree. Hmm. waaw mais manqué respect mooy njëkk ko dóor taxaw moo xam ne kii maanaam am na lu mu indi mm-hmm. nga fexe am foo jàpp bul xeex xoolal foo jàpp rek am noo ko daan am noo ko daane mm. ndax moo doo mbër bu jàppanteeg moom naan da ngay xeex mm. dootoo ko dooli soo moytul da lay dool nga rëb te lamb laa la wax de mbër bu wecceek moom ay kurpeñ ak koo mënti doon Sénégal gii mm. soo moytuwulee da lay door nga wàcc xoolal ñu wecce woon ak moom ay kurpeñ dëgg la te ëpp ko maas. Mhm. képp kum ko defal yaay mujjee teer. kon nag Siteu ay mbokkam suñ koy conseillé buñ ko conseillé ay demal xeex ak moom saxal xeex bi te yooyu yaa ëpp relance soo jàppee tànk xanaa soo jógee di am dara mais nga xool noo daane. Mhm. mais soo bëggee nekk foofu di di di bëre ni ngay signatiré. Mhm. nara saxal dóorante ak Modou Lo Modou Lo da koy dóor mu wàcc maa ko wax fii lu leer laa la wax am force de frappe. bëre bi sax moo ko gën mën mhm. bëre nag da ngay mën ñu daan la mhm. da ngay mën daanu mhm. mais Modou loo moo gën a mature ci bëre moo gën a ñor ci bëre fuuf nit yi nañ bàyyi naxante nit danga koy wax dëgg comme si te mooy xale nan ñëwee fug toog ci ay tànkam bañ a perte jàpp daan mën naa ne mën naa ne mais saa yu koy euh, basé wee ci xalaat pour daan du daan du lamb démb waaw diggante combat Modou Lo Siteu moom li ma ci bu dee dina am hmm. Ah, am comme war rek le 24 bi nga naan bu waaw mun na ñëw ba boobu du am. Mhm. mais mun na nekkee lamb bu soof. Mhm. ni ko nit ñi foogee mun na bañ a demee noonu. Mhm. waaw loolu daal mun naa la ko see wax mais lambu la nag. mais ni ko nit ñi foogee dëgg-dëgg. mun na bañ demee noonu. comme combat bu métti ak yooyu noonu quoi mun bañ nekk combat bu métti. waaw mun na nekk lamb boo xamante ne après tamit gars yi duñ ci am cawarte ndax xam nga rek lamb dafa doy waar. te ñu bëri. mooy li may wax rek dañuy communiquer si lamb sax mais dañuy fàtte lamb mhm. waaw lamb dafa am réalité yoo xam ne moo ne si biir mhm. te Modou mu ngi ci Siteu mu ngi ci mhm. te Siteu doomi séeréer la Modou aussi tamit jaxasoo na ak séeréer si ah. waaw te nit moom àdduna kóllëre moo upp sax boo seetloo ay diw xam naa diw xam naa diw nit ku am kóllëre pour nga ba ko du yomb mais yow it boo doonee doomi séeréer tamit fexeel nga dugg ci séeréer si kon chaque jour loolu lay lancé appel ci séeréer si ndax ñun lamb mu ngi bugg a génn suñ loxo te warul génn suñ loxo. mu ngi siy génn de. waaw naka la ciy génnee. Mm. mooy saa su nekk dama naan ñun doomi séeréer nañ defaraat suñ encadrement bu baax a baax a baax te aussi eh, promoteurs yi nekk ndakaaru ak mbër yi nekk ndakaaru pare wuñ pour jël séréer bu mun bëree. Mm-hmm. kon ñun war ñoo am promoteur boo xamante ne nii dina teg xaalis ci table bi ngir nga jël kooku ngir xaalis. dëgg mais bu dee xam-xam keseen. Mm. kenn dootu fi jël benn mbëru séeréer. Mm. waaw soo waxee dañ lay négliger ba nga màgget ñu doog laa jox benn booy mu daan la nga découragé. lambu i njom cosaan o sereer jegun mhm. i a ɗom ɗom ino jegun mhm. i comme tamit a soɓiida soɓiida in meen mhm. fat i ndefarin bo ande hay nu o kiina ñaka jom i mbaagano njeg i i promoteur i njeg xaana damta xa boya xe kaaga soom ke sax ne siktera kam den kaaga moƴta tax waaw aussi tamit kaaga moƴa tax o buganga tamit o refo sereer aussi o bugo damit oxa andoona yee carrément refee seereer mbala o nanga ñoxora ndaa o ñoxora oxa andoona yee tamit o seereer a ref ndaa instant chaque jour ke buguma ñoxor bugaam bug o lay a war war chaque année ne yekini a genoox tina e kami njom hmm. o seereer a genoox tin naaga mais ke sita soom refatu meen o seereer ana maaf ren se Serigne Ndiaye maafir kaan hmm. Obu Ndiaye Obali maafir kaan hmm. Pakala maafir dañ lay toog ne la da ngaa ay gaaf da ngaa ay gaaf bu ñëpp daw la nga mujj tardé si lamb te loolu baaxul. Mhm. lamb jàmbaar la woon da nga doon jël mbër doo ko gis da nga doon jël mbër doo xam fu mu dëkk nga ñëw mhm. bëreeg daan ko. Mhm. mais léegi lamb politique la. politique bi moo bëri da ngay xool boo xam ne yow mun nga koo daan nga doo koo jël. nañ chaque jour nga bugg a jël combat bugg a wiiri bugg tëbal Ada Fass bugg a tëbal kii Doudou xale la na ko gars yi jël. waaw ah, coow la fi ne rek. surtout ban stratégie la war a adopté parce que Boucar Dione nee na. nañ ñëw doole. Mm-hmm. ñëw ak fugg ba mu lijjante li li li Modou waaw non Modou moom boo bëggee dégg-dégg. Mm-hmm. benn xalaat la am ci làmb ci àddunaam. Mm-hmm. muy Balla Gaye mais keneen ku mun di ñëw. loo koy def da koy bett mais munoo ko bett munoo ko jaaxal. ndax tamit Siteu bëreet bëre nekkul mu ne bëreet dem si mbër loolu nekkul bëreem. damier lay def te Modou day damier te damier bi ci Modou la gën a arrangé waaw. lenn kañ laa koy ñaanal moom séeréer si nañ tee loxo Modou Lo nga xam ne moorloo du jóg wa ilaa hmm. waaw Modou Lo bërekatu tànk la te bërekati tànk pour nga egg ko fi nga ko war a egg ba daan ko hmm. du yomb Siteu bërekatu jàpp ngemb la te Modou boo jàppee day am possibilité pour bëreek yow hmm. waaw te Siteu ni muy jàppee day jàpp ngemb génne benn loxo te loolu fooru Modou Lo la waaw ndax dégg nga papi général ne la Modou Lo bëreek moom bu ne xanaa kii du kii du njomboor wax la loolu kon kooku mun na bëre bëre séeréer mun na bëre bëre olof waaw Siteu daal li koy ñaanal daal na ngemb bi diis gan. na ngemb bi diis. waaw kese <laughs> Maodo lay wax loolu. <laughs> Ah, Siteu Modou Lo mhm. ah, ay mbër lan la. Mhm. waaw Siteu moom. séeréer la suñu mbokk la bee nag. Mhm. Modou tamit suñu waay la. man daal li ma leen ñaanal rek kële gañ. waaw parce xam nga mënu ma cee wax man mënu ma cee sori. ndax see wax tamit. man xam nga man des fois damay toog dëgg laa ma ni ma xam kan moo daana ku jël drapeau bi de. Hmm. man. Ah. mbëri léegi yi ni nga gis ni sa booy yu bëri xaw ma leen. billaay walaay li may tëgg ñu ñëw sama biir di ma war noonu. Hmm. xaw ma si seen ah, tur sax xaw ma ko. lu waral loolu. c'est parce que man sama problème bi laay lijjanti problème bi ma nekkee ci làmb si loolu laa ne li may bégalee samay amateurs yi moom laay lijjanti mais du ma lijjanti ñoom seen bëri. mais Siteu ak Modou Lo leen xam nga ne ñi ay mbër yu mag leen. war a bëri combat royal. waaw mbër mu mag la mhm. Siteu moo koy fekk si ñëw jël si kon bu mu xaar comme li kii di wax rek man li ma gis bu mu xaar na ñëw rek def yëfu xale appliqué waaw buñ ko daanee sax garaaw man loolu laa jàpp de na ñëw wane boppam woon sénégalais jàmbaar laa séeréer deret bi mooy daw sama yaram ñëw dal si kawam waaw aca ñu jaxasoo yàlla yàlla baax na am déet mhm. que le meilleur gagne que yaakaar naa taxawee xalaat ñu naan su ma supporter yi ci ba boo même boo mm-hmm. du neex du ah, mm-hmm. ñëw rek rajaxoo moom mu jaxasoo kere mm-hmm. bu tas waaw ko defee lu am rek nga xam ne yàlla suñu borom noonu la ko bi la ko dogalee man noonu laa am na solo Boucar Dione kontaan yow di la naan maa ngi lay bëggee sama taw ma di la naan li ngay tàggatoo kontaan naa ci yow nag seen disponibilité bi moom sama waa xam naa ne maa la gënal ñoom Isaac ñoom Sara ñoom Diaz ak. fu ma toll da may woo. ñoom Apo. tey damaa liggéeyoon da nga woo ma ne ma bàyyi li ngay def ma bàyyi sama liggéey. ñëw fii dëgg la kon gàcce ngaa la ma yow kenn amul sa fay. Mm-hmm. waaw maa ngi siyaare waa fan si club bi yëpp. Mm-hmm. ñoom Issa Apo. Mm-hmm. Sara. ana Diaz tapar tapar. grand Badou. grand Badou. waaw Aliou Badou. grand nag dama ko defal loo xam ne ci ruq du ko wax kenn. ah waaw. grand Badou dama ko defal ci ruq. grand mbin yoro ah am na lu ma def ak moom biir kër yoro te ko wax nit te ko wax nit déedéet ah gars nañuy wax li ñu leen di defal lu baax li ñu wax waaw waaw da ciy baax ñun chaque fois comme li may wax rek. ah Boucar Dionne ku muy defal dara moom damay ah. ma la defal lu baax nga taxaw ci télé nga taxaw si nga ko wax. rek rek da doon taxaw di gërëm de. ba léegi daf may taxaw di gërëm. waaw man su lay defal te gërëm moo ma damay sama poos de. wala ma téye sama xam-xam. wala nga téye yor poos yor xam-xam. wala nga téye li ko doon def waaw voilà noonu la fa demee. Ah. ñëpp fa ma jógee. Mm. Ah, di ziar waa Castor ñoom Gub Sène xam nga. Mm. ñëpp ñoom Rahman ñoom Modou Bane ak ñëpp mm. ñoom Fallou Seck xam ñoom Abdou Daaru Modou Seen Mbelu ngi nee naa ko mu bala jàpp si man waaye daa bañ Seen Mbelu ngi ci layti seen sama mafia bi mm-hmm. waaw ñoom Birane xam nga Jum xam nga dawru ba Espagne mafia rëg-rëg bi dafa yaatu de lu tax tuddoo rëg-rëg yow mm-hmm. non problème mm-hmm. ak waa Pikine ñooñu dinañ defanteeg ñoom de lu leer laa la wax maa ngi ziar Sénégal ñëpp di bëggee ñëpp di jaajëfal ñi ñu doon suivre ci TV di euh, nañ jàppale ñi abonné wuñu woon nañu abonné xam nga gën a yokk seen. doo jàmbaar dama lay duma. barki yéen di yàlla Muhammad dama lay xool loo am bu mbokk yi déglu leen face to bu mag war a am samedi 12 octobre ci arène nationale ci diggante général Malika ak jamtéeri bu Kayaar du xam ngeen ni combat boobu la jëndeer production jël daal du koy def drapeau Ibrahima Faye Beuz borom Lutte TV waaye mbokk yi ci face to face boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Farouge Papuy jàkkaarloo fa ak Caatuwaalo Grofil jàkkaarloo fa ak Taala Gaynde Ouskara jàkkaarloo fa ak Deko Krik Karapit jàkkaarloo fa ak Boy Pire numéro ak yeneen xale yi nga xamante ne ni war nañoo bëri ci bés boobu yëpp kon gars yi rendez-vous baa noonu samedi 12 octobre ci arène nationale à partir de quinze heures di ko kenn tardé loolu yëpp nag ñu war ci ànd ak Jandeer production